La rubrique bon plan avec Larry. Larry. oui gàmmu exi, alors conseil. suñu suñu soxna yi. le sixième jour bourde bi. mu quatre jours ñu noppalu ben fan nak dal di oh. li voilà gamo nag xam nga l'islam dafa am couleur boo xamante ne moom mooy vert ah. couleur bu verte loolu mooy couleur l'islam mais couleur blanche dafa am ñoo xamante moom xam naa pour la paix la comme ni pureté etc. cetera du coup nag ñu bëri gàmm bu jotee surtout ñi nga xamante ne dañuy dem Tiwaawan ñoom vert blanc la ñuy faral di def d'ailleurs sax moom mooy seen couleur ñoom tijaan yi moo tax comme rek période bu nekk ak li ciy xew fan yee ci ginnaaw naat bee manqué woon ak tissu Baay Faal bi mhm. période màggal bi <coughs> pardon voilà pénurie moo amoon amul woon fenn fenn fi mu toll nii nag marché yi boo fa demee da ngay li nga xamante ne moom mooy couleur bu weex bi dafa daal di commencé manqué que muy góor ñi di jigéen ñi mhm. parce que ñëpp xam nañ ne bu ñuy def sax seen xadaratul juma yooyu noonu ñuy def euh, euh, les vendredis soir ñëpp il s'habille en blanc. absolument ñëpp moom la ñuy sol ba ci koppati bi lépp weex la ñuy daal di def loolu xam naa ñoo boo waxee sax des fois dañ naan day misaal li nga xamante ne moom mooy peut-être buñ fi jugee yàlla na yéex jour au delà wala li nga xamante ne moom mooy taxawaayu Arafat parce que fépp foo dem ci àddina ci lieu de culture yi nga xamante ne islamique yi voilà ñoom dañuy sol li nga xamante ne moom mooy weex boo demee taxawaayu Arafat benn benn ngay gis ñi ñu sol loo xamante ne du couleur bu weex mhm. ñëpp lu weex la ñuy sol xam naa aussi ñoom ci loolu la ñuy référé wu léegi nag boo demee ci marché yi yépp jeex na mais li ñuy wax rek surtout suñu mbokk jigéen parce que góor ñi ñoom chaque jour ils sabi correctement jigéen ñi nag la ñuy wax boo leen demee li nga xamante ne euh, mooy si seen jàng yu ñuy def la ci guddi prophète bi bu ñu jëndee seen tissu yu weex nañ ko ñaw lu jot ñu bàyyi ay paccal yi ñuy def voilà euh, mën naa poser benn question tey ah baas timtaat yeeg marinière yi voilà. waxal timtaat mel léegi mën naa poser question mën naa poser benn question. yan tissu la jigéen ñi di gën a privilégié en fait. voilà fi mu toll nii moom tendance bi yëpp brodé coton la. Mhm ok voilà bro de coton lañuy sol wala jesner comme ça dañoo ñu ci période bo xamantene ne dafa tàng brodé bi lañuy sol riche na rafet na té li jesner di jar mom lay jar bo xefé sax mu mu gën ko mu gën ko cher. mètre jesner ñaata la. jesner mi ngi jar 10000 12000 douze mille ah. voilà brodé yi day commencé 10000 ba li nga xamante ne moom mooy vingt mille francs le mètre am na boutique yoo xam ne boo demee loolu lañ koy jaayee am na yoo xamante ne tam paquet bi dañ koy jaay cent mille ba quatre cent mille francs ça dépend ku nekk ak sa poche mhm. xam ne boo nekk quatre cent mille dañ ma ko jënd te pourtant boo demee ci boutique yi nga xamante ne dañ koy jaay du day jar ku nekk ak sa poche ni mu toll mais bu ñu ko jëndee aussi nañ koy ñaw li nga xamante ne moom moo jot yiw dama du ma taay si di ko répété dëkk jàmbur boo fay dem mu ne la bugguma paccal bul paccal bugguma sol ay taybaas timtaat parce que ñëpp xam nañ ne toog foo xamante ne dañ fay wax wax yu yiw ngay sol ay taybaas yoo xamante ne am na ñi koy gën a def nag dañuy am yenn forme yoo xamante ne buñ la rombee rek il faut nga prêter ci ñom ah, attention. waaw man Taïbaas Timtat la bëgg ki mu woon ñuko ci ki bi ñu xol luy voilà même bu ko amul Taïbaas Timtat mooy Taïbaas bo xamantene da fay gatt da nga ne loolu buñ ko def. voilà ci si wax si gàmmu nañu nekk. voilà ci gamu ah la ñuy wax Timtat mooy lan ba pare. dafa ne buñ ko def loolu buñ ko ñu ci gamu moy mooy lan ci gamu lañu ñu nekk. Mhm. bu ko def amna na benn taybaas bu nekk ne ci gamu lañu ne boo demee bay sol na nga sol loo xamante ne dafa yiw voilà te tamit dëkk bu nekk boo fa demee am na loo xamante ne boroom dëkk ba da ko fay bañ. mi ngi mel ni ci eh, ñaseen yi kenn amul fitu toog fa naan da ngay def bopp neen bañ nañ ko sax ba ñoom même seen jigéen yi ci mbedd mi doo gis seen bopp nu mu mel foo leen fekk dañuy muuru wala ñu musóoru fo daye sax ñoom loolu nga leen di xàmmeewee am na sa façon muuraay yoo xamante ne bu buñ la rombee da ngay xam ne ñii taalibe bàyyi lañ xam nga ñooñ ñoom dégg nañ ndigal mais ñeneen ñi nga xam ne aussi dañuy dem ci dëkk jàmbur yi ku ci mel ni fu ci mel ni géewul man fi may gàmmoo boo fa duggee ci biir tente bi boo defee bopp neen ay duma moo la ciy fekk wala doo fa dugg nañ la génne ci biti ci ah, chérif yi voilà bëgguma lii bul def lii ah, amul benn njëriñ man ren jii laa xam ne li ñuy tere yëpp suñu noppal la doon aal létt léttu karaw teg sa muuraay wala sa kol barki rasulaay man gisuma lu ko gën a yomb non seulement booy màggale wala ngay gàmmu dinga nga somm jënd sa cheveux naturel perruque bi di la bëgg a rey ngay bëgga dee énervé léegi nag bu ñu la nee léttu léttu karaw kooku yombalal na la ko defal li ñu leen sant jaamu yàlla moo leen fa yóbbu ngeen dem jaamu ju yàlla ku si mënul dem tiwaawan demal sa jàkka sa biir néeg sax boo fa toogee mën nga gàmmu sangu ba set lal sa sijaare jàpp julli def ay salaatu ala nabi loolu ku ko def aussi am nga gàmmu du question que ne dama bëgg a dem tiwaawan wala dama bëgg a dem njaasaan su ma demul bërëb sàngam rek amuma gàmmu dëgg la te laaj comme li nga doon rek par rapport ak euh, li nga xamante ni mooy tissu yu ñu war a mën a jënd tey jii nii am na fi ay voile léegi yoo xamante ni dañoo weex tàll mhm. voile yu weex yoo xam ne ça coûte rien amulee brodé bu riche boo war a mën a jënd wala amuloo njëkku jënd brodé wu mètre dix mille parce que sa poche euh, sa loxo yi euh, attanu ko mais da jënd sa voile moins di nga am lu weex looy sol loo xam ne dafa yiw parce que voilà moom boo ko jëndee di nga ci mën a ñaw sa benn voilà grand bu wala nga ñaw ci sa benn taille basse lépp lépp loo xam ne mën nga ko ñaw ci brodé mën nga ko ñaw ci ci voile donc et puis yaa nga nuroog nit ñi yiw mën a dem tamit gàmmu sa gàmmu nu mu gën a rafetee rek mais xam nga nit ñi parfois dañuy bëgg excéder ci li ñuy def maanaam dañuy dem ba mujj bi sax tiitër bee leen di ëpp doole alors que dañoo dem pour dem jaamu ji yàlla dañ ciy boole waale tiitër boo xamante ne pour ñoom voilà tant que ñu lu cher defuñu lii defuñu laa ils

ma jox ko laari wala ma jox la ko yow mais nag ma ça dépend mu ñawal la ko ñaw boo xam ne doo mës a xalaat na lii nii ki jënd yërëm 400000 sax yàqee daa am na ay voile yoo xam ne da ngay gis des fois ay modèles yu ñu ci ñaw yoo xam ne c'est tellement joli mhm. si tu boo xamulee tissu nii par exemple xamoo ne lii voile la tu as du mal à décerner ndax voile la wala du voile tellement que c'est joli et c'est bien fait donc je pense que nit ñi moom léegi moom amatuñu excuse lu ñu def rek ñoom la neex mais toutes les solutions sont là xam nga ñaw bu ci tissu bi ñaw ci garniture bi la mhm. da ngay jënd sa benn tissu boo xam ne mètre cent francs nga koy jëndee pardon daal di si def sa garniture bu rafet mu daal di valoriser tissu boobu daa mu daal di rafet comme li nga wax nii rek am na nag ñoo xamante ne gàmmu gi mënuloo fexe wala màggal mënuloo fexe ba ñu sol mètre huit cent ndax bu ñu jugee ci gàmmu gi ñoom ci kattanu yàlla la ñu koy commencé di dajale loo xamante ne parce que ñooñu day doon ñoo xamante ne benn événement yitteelu leen mhm. lu dul am na ñoo xamante ne màggal ba màggal moo leen yitteel moom la ñuy ñawlu mhm. wuñu korité ñawluwuñu tabaski ñawluwuñu yeneen ak yeneen dañuy bàyyi ba màggal lépp loo xam ne moom la ñu waxoon def ci événement yooyu ñu daal di ko ciy def pareil que am na aussi ñoo xamante ne màggal gi kese moo leen ñor muy mawlud bi guddi yonent sallallahu alayhi wasallam daf leen koy jaral da na leen ay tontine jaral na leen ñu dem di denc jaral na leen ñu def ne ñooñu boo leen waxee waxu voile dañu la naan mayte wéroo <laughs> non mais je veux dire euh, voilà si te nag li mu gis koo xamante ne dafay sol brodé bu cher. Mhm. man ma jënd sama voile mètre 800 jënd sama jour coton galon ainsi de mhm. suite def ko ci rafet pourtant ñun ñëpp buñ bâche bi. la ñuy sol. kenn du ràññee kan sol 400 000, du kan sol 800, 000 sol voilà même bu fekkee ne kenn daf ko amul benn lan a du valeur tissu bi xam nga lan mooy feeñ. harmonie wu bâche bi. loolu moom bi ci sunu sunu dëkk ba fële mhm. ci fa la fekk baax sa

di si kër jeex na amul allah voilà mi ngi comme li may wax léegi nii rek léegi foofu boo demee nga jënd sa jasneer ak ki jënd percal bi kan moo leen di xàmmee bañ nañ ko ba bu ñoom balaa ngay gën a kontaan ba ngeen seen nga sol malikaat bu weex ngay nga bëgg percal bi waaw mooy seen mooy bi la parce que malikaan buy bees du du du weex dafay beige il faut nga koy fuur percal lay doon ah? bu weex voilà mooy gën a xàll lii nii sax am na benn tissu laa xaw ma ban façon maylus maylus moom la am na ci su bu nooy ci maylus la nga tax waaw mooy maylus la boobu moom baax na boobu weex fur man mii sax xam naa ne si laay e ñëwlu fay xanaa ya nga fàtte ne y' a 20 ans moom lañ doon sol fàtte xam ya. da nga doon bouger muy muy yëngu di def nii waaw waaw ko ñëw ci aya on en revient à la tenue voilà comme li ñu wax rek de grâce képp koo xamante ne jënd na si sa tissu na nga ko ñëw loo xamante ne dafa yiw mm-hmm. daal di jot jarul ay defante jarul loolu parce que defante yóbbuwu fa kenn mm-hmm. leneen ak leneen yóbbu puukare yóbbuwu fa kenn jaamu ji yàlla moo fa yóbbu ñëpp mm-hmm. kon bokk na si ñëpp bàyyi xel oh.